yotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci rideau yére ak moustiquaire ak booy diw ci yaram Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé mbokk yi asalaamualeykum dal leen ak jàmm ci Sud FM ñu dikk ak yéen ci seen xibaaru wér-gi-yaram dañuy dem Touba dalal ñi nga xamee ni si ñoom ñoo nekk malaat yi ngir ñu am fajtal mu mucc ayib day loolu day le district sanitaire bu Touba bëgg matale loolu sax tax na mu dajale personnel bi tàggat leen bu baax a baax ci module yu bare ngir kat ñu mën a am fajtal mu mucc ayib ci yaatal dañ ciy déglu correspondance bu tuuti sëy ñi nga xam ni dañoo wéré di di dem ci bërëb fajukaay yi dina ñuy faral di jàmbat dalal bu naqari bi nga xam ni moom lañ fay fekk te loolu mën naa am lu mu jur ci wàllu faj mi. ngir nag loolu bañ a am fi nga xam ni mooy district sanitaire bu Touba docteur ndey Maguette Diop médecin chef bi fexe ba personnel bi ñu tàggat leen ci naka la ñuy dalalee ñi nga xam ne dañuy faral di ñëw ci barabu formation bi nag ki nga xam ni madame Khady Doucoura Diop jiite Touba Univers man doon ko amal dellu si waate ci formation bi niñ ko doxalee. te dafa am beneen toogu toogaay bu ñu war a toogaat ñun autorité sanitaires yi ñu ko dawalee ci ministère niveau central bi ba ci niveau opérationnel moom la ñuy wax plan de développement sanitaire plan boobu nag district da ci jouer rôle rôle bu am solo. médecin chef district bi nag moom xam loolu ne ah loolu man ci. accueil bi laay tàmbalee ndax ku ne xam na ni district approche communautaire la te li ci ëpp solo mooy communication. formé nañ leen ci module yu accueil ni ñuy dalalee formé leen ci ni ñuy dalalee ci téléphone formé leen tam ni ñuy gérer. ñuy fayee ay. ñi nga xam ne ñoom ñoo ci bokkoon jot seen ay attestation ginnaaw juróomi fan buñ leen tàggatee ñoom rafetlu nañ lool lu ne mel docteur Mame Coumba Gueye di médecin chef adjoint di wax ni lii dina indi yokkute gu rëy ci bërëb bu fajukaay bi. jaaxle ñëw ci hôpital bi dañ ko war a accueillir dalal ko bu baax donc formation bii nga xamante ni moom la dem jóg def lu am maanaa lu am solo la nar a am jeexital ci biir suñu structure yi am jeexital bu baax aussi tamit si malade yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw après duñu fréquenter parce que bëgg nañu malaat bu dugg si suñu structure yi di faju bu ñëwee dafay am jàmm am accueil bu baax. Morlo bi nga xam ni moo teewaloon maire ci cérémonie clôture bi di wax ni yeneen bërëbu fajukaay yi tamit war nañoo am lu ne mel. en tout cas danaa def plaidoyer bi au niveau de la mairie au niveau de maire au niveau des adjoints au maire au niveau du conseil municipal pour que lii ñu mën koo tasaara ci dëkk bi. bërëbu fajukaay yi su gënee yokk lii di plateau technique bi gën a yokk ak ay jumtuwaay yu mucc ay yëpp bokk ci it ay ressources domaine yu am solo dina tax ba askan bi bañatee am benn jafe-jafe ngir dem ci bërëbu fajukaay yi ak tamit faju niñ ko bëggee tuuti say mbàkkee Sud FM. mbokk yi fii lañuy ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru wér-gi-yaram jaageen jëf ci déglu bi ba beneen.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 Direction, un bon accueil pour des soins de santé de qualité, c'est le défi que compte relever le district sanitaire de la ville sainte. À travers une session de formation, le personnel de santé a été outillé sur différents modules. Pour les détails, suivons cette correspondance de Toutissé. Les patients qui fréquentent les structures sanitaires se plaignent souvent de l'accueil qui leur est réservé, ce qui peut avoir un impact négatif sur les prestations. Dans le but de s'inscrire dans le siège du Plan national de développement sanitaire, le médecin-chef du district de Touba, Dr Neymag Diop, a investi sur la formation du personnel en accueil. Cette formation, assurée par Madame Khadi Doukoura Diop, directrice de Touba Univers Management, a porté sur différents modules. L'accueil physique téléphonique et la compilation avec l'accueil physique téléphonique, la gestion des clients, la gestion des conflits, des tensions par rapport aux relations client et aussi la gestion de la fidélisation du client et que nous nous référons aussi dans ce cadre au programme national de développement sanitaire qui, euh, qui est la feuille de route actuellement pour une atteinte des objectifs de développement durable et que et au niveau du district sanitaire, la prise en charge euh, communautaire euh, démarre avec l'accueil au niveau du centre de santé du district du poste ou de la euh, case de santé aussi. Les bénéficiaires qui ont reçu leurs attestations à l'issue de cinq jours de formation se sont réjouis de l'initiative. Docteur Mam Gueye, médecin-chef adjoint du district, affiche son optimisme. L'accueil de ce patient constitue le premier maillon de la chaîne rationale du, du parcours thérapeutique du patient. Donc le patient qui est reçu, très bien reçu et installé et constitue le premier soin de ce patient. Car il faut, il faut joindre la parole à l'acte. Maintenant, nous veillerons au niveau du district, les différents responsables à la mise en œuvre de, de, de, de ces différentes euh, formations. Les représentants du maire à la cérémonie de clôture estiment que d'autres structures sanitaires doivent en bénéficier. Un élargissement de la carte sanitaire, un relèvement du plateau technique, des infrastructures adaptées ajoutées à des ressources humaines de qualité pourraient permettre un soulagement des patients. Touti Sey Mbacké, Sud FM. Mesdames, Messieurs, Info Santé, c'est fini. Merci de l'avoir